ñu ngi ak yéen ci ëttu mag ñi di programme bu nga xam ne suñu yéene ci taxawal gi mooy fexe ba téere mag ñi nga xam ni agsi na ci suñu loxo yépp ñu seddoo ak mbokk yi lam làmboo xëy na seen baax ak seen jege yàlla tax na ku mel ni ñun dana lottu ci leeral seen njàngale waaye maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu ñàkk mën a dajal lépp du tax ñu bàyyi lépp kon nag luñ ci am rekk mu doy ndax ñoom seen lépp yàlla la te loo am ci yàlla doy na sëkk boo defee ñu ngi woon ci nuuniya bu Mawlana Cheikh El Hadj Malick ba amoon nañ ci ay euh, leçon defe naa tey mooy ñeenteelu bind wi xëy na bu jeexul la cay des du bari ñu ñëw ak ci téereem bu doy waar boobule ci xeeti xam-xam yi mu boole ci rafetuk noose ci eh, wane kanay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu ko yàlla boole fayal yiw fayal ñu mag ñëpp waaw ah, mag ñëpp nag moo xam waa kër Mawlana Cheikh Seydi Ahmed Tijani la wala yeneen magul islaam buñ ca am rek bu soobee yàlla danañ fexe séddoo ko ak yéen ku ci amit bind mag mu mu defe ne buñ ca jotee dana euh, mën a jëriñ te ñoom seen bind yëpp a jëriñ bu ñu ko joxee a ah, ñu jàng ndoo ko rek euh, séddoo ko mbokk yi di ñaan yàlla nag mu taas ñu ci euh, barke mag ñi nga xam ne amuñu ñu dul ñoom ñu ngi taxawoon ak yéen ci baatu diine yi nga xam ne Seydi El Hadj Malick eh, na lu mu ko tudd te yi mu tudd yépp bokkuñu eh, luñu ñoo firi sabaqna man siwaana ay sabaqin bihi dinna la aadi kulla diini bihi dinna wa daana alxayru xayran wa charran yaa ilaahi qawwi duuni maani diin yooyu mu wane ci mën-mënam te jubluwu ci wane mën-mën waaye dafay fàttali ndongo daara yi daara ji dafay fàttali ndongo daara yi e, njàng mi dafay fàttali ndongo daara yi am solo e, luga bi di luga arabiya e, te xam nga wax na la ca njëlbeen nga masaadir yi nga xam ne ci la baat yi gonge ko tudd na ci bu mel ni xaamuus te boo demee ci xaamuus dafa fekk baatu diine yii mu tudd euh, suñu beneen mag di cheikhul islami wa chamsu alfaydati tijaniyati al kubra mawlana alhaj ibrahima ñës def na benn rajaz di ci wax maani diin yi nga xam ne xaamuus jàngale na ko yaa saailan anni maani diini fa haakaha manzumata lujeyni fa diinu qad yutlaqu lil islaami kadaaka sultaanun bilansiraami diinu jazain siiratin wa aada muwaadibi al amtaari wal ibaada dhullin wadaa'in huma qahrin galaba kadaka tadbir wa mulkun atriba macsiyatun wa waracun ikraahu xisaabun ilqadaau min liqaahu aw qadaau man laqaahu wa layinu al amtaari listiclaau كذاك توحيد وحكم جاء وقد أتى تفسيره بالحال وملة من دون ما إشكال mu ne nag qad gustuhu min lujajil qaamuusi imaamina idaatil udmuusi nee na diine dana firi lislaam dana firi nguur dana firi fay dana firi siira dana firi aada dana firi taw yu bari wala taw bu Euh, te arrêté dana firi toroxte dana firi jàngoro dana firi notel dana firi ak euh, euh, settantal dana firi mooy yàlla dana firi ak sàmm dana firi forcé dana firi xisaab dana firi noot dana firi taw dana firi ak kawe dana firi tawxid dana firi atte dana firi it dana firi millatu yooyu yëpp nag Mawlana Alxaaji Malik yal nañu ko yàlla boole fayal yow booleel nañu ko ci xasida ji taggee ko sayiduna rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi nee na yonent bi xanaanun bal xanaanun bal xanaanun xanaanun bal xanaanu axil xaniini sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent yàlla Muhammad xanaanun yoon la mooy yoon wi nga xam ne ku ca jaar àgg ci yàlla ku ca jaaru doo àgg ci yàlla fa anta baabullahi ay yumri in ataahu min gayrika laa yadxul waaw wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim bal li fi nekk xanaanun yërmande la yàlla ko waxoon wa maa arsalnaaka illa rahmatan lil alamin bal li fi nekk xanaanun barke la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam askan wu dugg rek mu sakkan moo tax ba mu duggee ci askanu Quraysh ñu gën ci askan yi mu dugg ci arab ñu gën ci nit ñi mu dugg ci xeet wi def ñu gën ci xeet kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi amewuñ ko ci lu dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lamma daa allahu daacina li taatihi bi akrami rusli kunna akramal umami kon nag xanaanun barke la xanaanun wërsëg la sax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu ñu am ci tëbbu moo xam wërsëgu dund la moo xam wërsëgu alal la moo xam wërsëgu diine la moo xam wërsëgu famille la moo xam wërsëgu wér la moo xam wërsëgu kattan wumoo wumu mooy rasulullahi rek sallallahu alayhi wa sallam bal li fi nekk xanaanun matal kóllëre la kenn mënta matalee kóllëre ni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xanaanu axil xaniini matal kóllëreeg borom cofeel borom namm saaxibu shawq sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam képp ku bëgg yonent bi képp ku jaar ci yoonam képp ku wax lam def ne ku ko def da nga ci amee nangam billaay soo ko defee billaay soo ko soppee billaay soo ko toppee nga xam ne lu yàlla bind yonentu sallallahu alayhi wasallam moo ci gën a matal ko lëre moom sax mooy ramzul wafa yi alayhi salaatu wasalaam kon nag xanaan yi mu tudd yëpp benn bokk ceeg morom ka la muy firi xanaanun yoon la sallallahu alayhi wa sallam bal xanaanun yërmande la sallallahu alayhi wa sallam bal xanaanun barke la alayhi salaatu wasalaam bal xanaanun wërsëg la alayhi salaatu wasalaam bal xanaanun matal kóllëre la wala xanaanu axil xaniini matal kóllëreeg borom cofeel borom nammel la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nee na wa sunnatuhu tuxajjilu min budurin wala tatlub li haada min xaniini sallallahu alayhi wa sallam mawlaana cheikh alhaaj malik radiallahu tabaraka wa taala anhu nee na wa sunnatuhu kanamu yonantu sallallahu alayhi wa sallam wa sunnatuhu jëhawli yonantu sallallahu alayhi wa sallam wa sunnatuhu lexal yonantu sallallahu alayhi wa sallam wa sunnatuhu melow yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam tu xajjilu dana rusloo dana xeresloo min buduurin ci weer weer wi su tollee guddi fukk ak ñeent nga xam ne badar lañ ko fay tuddee ma nga leer mët sëkk la mu leer leer la mu rafet rafet bu yonati bu ne tëll rek weer wa rus dootul amati leer dootu rafetati ndax balaa ngaa rafet day fekk nga nekk ci teewaayu ku la gën a ñaaw mbaa ko taar waaye boo nekkee ku la dàq rek ñaaw yonent bi nag moo dàq ci li yàlla bind mooy jëmmi taar moo tax weer lu mu leer leer lu mu rafet rafet bu yonent bi ne tëll leer ga fay bu yonent bi ne tëll taar ba dem ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo may weer wi ak leer moo tax ba ko saxaaba bi di observer di observer weer wi di ko xool di xool weer yi mu ne wallahi yonent bi moo gën a rafet weer wi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ndey Aysatu ne ko gis nga jigéeni euh, Yuusufa ña ko doon sàkku ca Misra ànd ak Zulayxa buñ la gisoon duñ dagg seen loxo yi de seen xol yi la ñuy dagg falamma raaynahu akbarnahu wa qattaana aydiyahun bu doon yow moom wa qattaana quluubahunna lay doon sallallahu alayhi mu ne wala tatlub rek bul